Cérébraux International. Cérébraux International. abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa su nekk ay yu wér te wóor aju ci réew mi. internautes yi ñuy ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal tënkub xibaar tey jeudi di 11 août 2022 ñu tàmbale kook xibaaru euh, biir réew mi. gannaaw taw yi nga xam ne nag wàccoon na fii ci Ndakaaru boobu ba léegi xam ngeen ne quartier yu bëri ci Dakar dañuy am ay coupure euh, courant bu ñu sukkandikoo nag euh, ci waa Sénélec nee nañ daal loolu li ko waral moom mooy euh, ab miir boo xam ne moo doon moo nekkoon foofule kon ca centrale bu aan moom moo daanu ba ndox bi kon xaw leen a sonal loolu nag tax ba kon quartier yi nga xam ne da dépendre ci boobu le nekk ca aan ñu am ay dog-dog ci ay courant ba mujjee alimentaire euh, feneen euh, foo xam ne sax dèjà da doon alimenté yeneen i gox loolu nag indi ay jafe-jafe euh, bu ñu sukkandikoo ki nga xam ne moom mooy Oumar Diallo di directeur de la distribution foofu la ca Senelec ci ay kàddu yoo xam ne dënk na ko suñuy naataango ñu journal L'Observateur njiitu réew mi Macky Sall tàmbali na dalal ay nit ngir daal waxtaan ak ñoom ci gouvernement bi nga xam ne ñu ngi koy xaarandi muy gouvernement bu bees gannaaw bi élection législative yi jàllee bu ñu sukkandikoo nag suñu naataangoo yu sur le terrain nee nañ nag fële ca palais sax. am na daal euh, ay euh, nit kon yoo xam ne njiit réew mu ngi leen di dalal euh, di waxtaan ak ñoom te loolu sax ci lu nit ñi yëgul ñoom nag nee nañ li ñu ca loolu daal mooy ay ndaw lañ ca gis ay ndaw yoo xam ne ay cadre lañ yoo xam ne daal njortu nañ ne dinañ def carrière bu baax a baax a baax ci gouvernement bi nga xam ne kon moom la ñu dëgmal ci diggante Benno Bokk Yaakaar ak euh, intercoalition euh, yewi Wallu ñu ne fan la ca Pape Diop nar a tànn gannaaw bi nga xamee ne ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk mu ngi bëgg député ngir mën a am lii di euh, majorité fële ci assemblée nationale ñu ne nag bësu tey bii kii di Pape Diop ji njiital bokk gis-gis dina amal ab conférence de presse pour daal wax ana ban tànneef lay def kon loolu ñu koy xaarandi di 17h jotee fële ca siège bu bokk gis-gis xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy ca réewum Mali foofu nag ab deuil national bu trois jours muy dëj boo xam ne ñetti fan la ñu jagleel ko nag seeni soldats lu toll si quarante deux soldats yoo xam ne kon dañoo ñàkk seen bakkan gannaaw bi nga xamee ne ab attaque terroriste dafa amoon foofu ñuy wax te euh, Tessit dimanche bi ñu génn. xibaaru bi bitim réew it benn ponk lay doon muy lakk bu métti goo xam ne dafa am fële ca euh, Gironde ci réewum France àll ba nag mooy lakk lakk bu métti ñu ne sax lu toll ci six mille huit cent ci hectares jot naa lakk te lakk ba mu ngay wéy tàngaay bi nag ak température yu yu kawe yi tax ba ñu yaakaar ne kon boo moyewul lakk bi mën naa gën a jéggi dayo loolu sax tax na ba réewum France sàkku ndimbal ci Union européenne ba yónnee nañ leen ñeenti avion ngir ñu mën a fay boobulee lakk dañ koy jeexal ak xibaaru sport démb nag gannaaw bi ñuy amal quarante quatrième assemblée générale euh, fële ca Tanzanie euh, njiital kaaf nag xamal xamle na ne li nga xam ne moom mooy super ligue africaine dinañ ko tàmbale euh, ci deux mille vingt bu weeru août ba jotee. loolu nag moom Patrice Motsepe nee na li tax ñu bëgg koo def mooy daal ngir gën a mën a suqali li nga xam ne moom mooy footballu Afrique. dañ koy jeexalak ak Real Madrid mi nga xam ne moom tàmbali na saison bu baax a baax ndax démb sax moom moo gagné li nga xam ne moom mooy super coupe bu Espagne gannaaw bi nga xamee ne nag moom moo dóor Francfort ñaari bar ci dara lii la ñëwoon tey ci ay xibaar rafet seen teewlu dinañ jox daje ëllëg jaa ngeen jëf.